تركت ما كان لي بغير مبتغيا ما علم لي يا بحاجتي tey ñu ngi ñëw fii ci eh, UCAB muy université Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ni moo nekk fii ci Dakar Zac de Mbao eh, ñëwoon ziar si sëñ Mamour Mbacke Mourtala ñu ngi ñëw ànd ak suñu jëwriñ ki nga xam ni moom mooy sëñ Mamour Mbacke te mu féete Washington DC ànd ak sëñ Saliou Diop mi nga xam ni moo jógee mooy jëwriñ daayira North Carolina ñu ngi amit ànd ak sëñ ah, Moustapha mbay mi nga xam ni moo nekk Montréal ànd ak ah, secrétaire général FONCAP fii ci Sénégal nga xam ni mooy sëñ Fallou Thiam ah, sëñ Saliou Seck alxuraan mi teewe ko mu représenté fi Pape Gora ñëw ànd ak ki nga xam ni mooy Mamadou Lamine Mbaye nga xam ni moom mooy euh, trésorier wu euh, li nga xam ni mooy FONCAB donc euh, ñu ngi lay ziar bu baax a baax Mbàkke di ñaan yàlla nga yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaan sëñ Mountakha yàgg fi lool te ànd ak wér liggéey bi nga xam ni moom nga ñu santoon foofu noonu si États-Unis ñu nekk ci ba tey ndigal Euh, fekk ñu ci muy kër sëñ Touba fu ne tey ndigal fekkuñu ñu si te loolu laa bëggoon bàyyi sëñ euh, Mamor nga xam ne moo ñu féete Washington mu euh, mu leeralal la ndigal loolu nu mu demee donc ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax Mbacke. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar di yëgal mboolem. jullit yi ñuy seetaan ak fu ñu mën a ne mu di di ñu déglu tey ñëw nañu fii siyaare si sëriñ Mamor Mbakke xalifa Cheikh Mahamadul Mortada góor yàlla di dikk nag di la eh, jottali ndigal loo xam ne dañ koo jot sëñ Muntaxa xalifa général de Mouride eh, yàlla dogal kero ca eh, bi ñuy def siyaar ba sax te nga boole woon ak sëñ Abdou Lahat am Mortada ak sëñ Mortala Amar ak mboolem ñi ñu àndaloon ci ay jëwriñ jóge ci ay réew doon jébbali ji àddee ji kero boobee eh, sax la sëñ bi bëggoon a joxe ndigal li ndax kóolute gu mu ak xolam bu sedd ci yow ndax kero ci kanamu ñëpp seere na ko ñëpp dégg ko mu daal di wax ne mi ngi fedd li eh, digganteem ak sëñ Mamoor bu baax muy sëñ Mamoor Murtada moom sëñ Muntaxa mooy wax kero defe naa ikab bi ma nga fa woon doon na ko jël mu ne mi ngi feddali seen diggante bu baax ndax xam na ne lii am muy at yi jóge bitim réew di ñëw ci moom te ca anam ga gën a rafet sa loxo nga ca biir mu seere itam lu ñëpp dégg muy rafetlu sa pas-pas euh, bu bu yaatu lool ak yitt ji kawe loolu te rëy mu wax ne loolu ngay dund te ànd kook mboolim taalibe yi loolu keru sëñ Muntaxa seere na ko ci kanam ñëpp nu déggandoo ko loolaat xanaa dañ koy baamuwaat rek ndax Euh, fadakir in nafaati zikra dama bëgg noonu taalib yëpp ñu bokk xam ne sëñ Mamor mii eh, ni na ko gisee mu koy doxe muy doxinu góor yàlla ba nëgë ku fi mas a nekkal sëñ Tuubaa rafetlu nga ko ba ci Cheikh Mountakha mii kon barki démb bi muy rafet rafetlu jéegu suñ Mamor moomu eh, ca la amee kóolute ci nun ñi nga xam ne nun la jiite bëggoon noo jox ndigal waaye xam naa mu amoon néggandiku ba bark eh, fan yi weesu ni ma ko waxe ci la woolu ne nañ dajeeg sëriñ Bachiru ca eh, kër sëriñ Tuubaa ga ngir mu jot lu ndigal li ndigal loolu nag moo tax nu dikk tey jii fi yow noo sàkkoo dajeeg yow ngir eh, sàkku ci sa ñaan eh, ndax ab taalibe bu jotee ndigal kay jëwriñam ca liggéey ba ca la war a dellu wax ak moom jëf ak moom laaj ko ca xalaat moom mu xam nag fam cay teg tànkam kon ndigal loolu ñu sëñ Muntaxa jox muy ay kër yoo xam ne da koy defar ci Tuubaa lu toll ci ñaar téeméeri kër waaye mu sase ci Amérique ak Canada lu toll ci juróom-benn fukki kër ak juróom-benn euh, loole nag euh, plan ba xëy na des na génn gut waaye dañ ne balaa plan bi génn nañ ñëw ci yow mi xam yaay jëwriñu liggéey bi loolu moo waral ñu teew tey ci di sàkku ci yow ñaan ci liggéey bii nga xamante ni bii moom la nu sant te nga ne ca bopp ba euh, sàkku ci itam say xalaat sàkku itam sab soññee bu jëm ci mboolem taalibe ndax nu man koo songu bu ba bu gaaw daan ko ndax ab taalib bi fu mu mën a nekk ndigal rek lay déglu te ndigal lu daanu rek ma ngay séentu leneen ni ma ko waxe woon keroog ci gàttal daal Mbàkke ngir bañ a guddal loolu mooy suñ jéego yi tey yi di la sant di la gërëm di la ñaanal tey sàkku say ñaan kon ginnaaw bu mu leen nuyoo euh, dalal leen ci barab bi nga xam ne euh, mën naa wax ne ñoo ñépp a ko bokk rawatina yéen di rafetlu bu baax kàddu yi sëñ Mamoor sàmm ak mbooleem ñi nga xam ne yéen ñëpp yéen a ànd ci jotaay bi di leen ci sant bu baax ndax te xëy na xër rek la wante dinaa jot ngeen diggal ci ki nga xam ne moo fi nekkal sëñ Tuubaa moo fi moo mu njiit loola ñun ama amatuñ ca baat ndax li may wax rek la ñun lu ñuy booleeg yéen du baat du dara daraja du wut alal sëñ Tuubaa rek la ki nga xam ne tamit moo leen ko digalit cër bañ koy jox dara du ko dindi ndax yàgg na du ca génne lii la ndax lii lu gaar rek la te bañ koy xam yàgg na te dégg ma wax ci moom lu bare ci jikkoom ci li nga xam ne tamit ak woyofam ak xolam ba dégg ngeen may wax sax toujours ne yàlla na ko yàlla musal ci ñi ci bokkul te kenn mënu leen cee génne loolu du sama wax waxu yàlla la alxuraan moo ko wax bu ma ko waxee moom damaa xam jikkoom ak ak dama caa xam tuuti yéen ñi tamit bu leen digalee su ngeen ñëwee ci man xëy na rafetal rek la li ma fa indi ci yéen it mooy gis naa ne yéen a fa nekkal sëñ Touba te du wax jaaxaan ndax sëñ Touba li ko yitteel mooy foo dem rafetal fa lislaam ba kenn du ko fa yab sëñ bi dafa tobbi rek sëñ Mourtala da leen a won ba muy digle ay kër mais am nañ ñu ko weddi woon sax ne ko mënul nekk parce que ñun amuñu fii sax fu mën a looyee bay am kër <laughs> te wax nañ dëgg. mais booba la muy mu fi dem yëpp foofu alalam la ca def. Mm-hmm. alalam ji jubluwu ci ne moo ko moom ab lu ci da su ko neexoon ne tabaxal leen ma ay kër. Mm-hmm. kon gis ngeen njariñ la. xam ngeen ne mënul ñàkk. waaye mënul ñàkk ga ci kaw la ay biir ba. moo gën a moo gën a rëy. ndax réewi tubaab ngeen nekk. xamuñu diine. buñ ko xamee tamit lañ ca xam bokkut ak noonu lañ ko xamee. kon su fekkente ne ñoom dem nañ ba nangul leen loola. kon yéen a ko def parce que comportement parce que ñooñu du ñu baale dara comportement boobu ngeen am ba mën faa taxawal diina taxawal ko kooku sëñ Tuubaa leen ko jàppalee parce que moo ko ñaan ndax lim ñaan lépp wax naa leen ci xasida yi ne orientation yi muy def yëpp da koy ñaan bëggante soppante alors ba jël xuloo ba naa la tawaadudi bi laa tanaason in wala taxaasudi wala taxaasumin ay affaire ay ay critères lu muy wax lu ne day jël baat yi day tànn moo yi mu koy waxee te loolu dafa bokk ci adab mm. ak balaaxa waxiin ak baat yi ngay tànn dafa bokk ci xam-xam ñun li ñu booleeg yéen dañ koo xam liggéey bi ngeen di liggéey sëñ Touba tam ñor nu te mënuñu ko ngeen di ko def loolu moo ñu yitteel te wallaay ñëpp ko waroon ànd ak yéen mais yéen a koy def parce que yéen a ko man ndax nit kuy joxe alalam mm. di joxe dooleem te joxe waxtoom te xaarul ci yow dara mais kooku ku garaaw la <laughs> ah yàlla rek la man nag ku leen yërëm laa te ñu leen ñu yëpp leen war a yërëm parce que charge yi bari na yéen ñi ci am na ci ñoo xam ne ay kër yu baax lañ fa yoroon jaay nañ ko ñëw toog senegal te gënalu leen am na ci te ay ndaw lañu am na ci mag ñoo xam ne retraité ñu ñu seeni doom lañ fa mujj yóbbu seen doom adopté wul réew mu amaguñ dara ak yi di sëpp ci yéen kaw kon dara amatu fa dangeen ngeen di débrouiller rek xam naa ci dara mosuma ba ñëw ba wax waxu xaalis parce que li ma gis ngeen di def moom ma gënal xaalis te yàlla xam na ko it ndax mosu leen ko dégg mais la ngeen di def te ma mënoon ba doon ko def te mënuma ko ngeen di ko def man loola moom laa intéressé parce que yéen da fay def ay millions di ko jënd ay kër lu tax te amu leen seen kër yu baax di jël ay centaine de millions di ko jënd ay ay château foofu muy bu ngeen demee New York bu ngeen demee Washington bu ngeen demee Atlanta bu ngeen demee Detroit bu ngeen demee euh, fu nekk ngi ak Cincinnati parce que xam naa li ngeen di def la ma seq ak yéen su ma ñëwee yéen jël programme ne ma autorités yi nañ ca dem bu demee discuter ak ñoom ñu respecté Lamine xam na ci tara dañuy dem ci département dañuy dem fu ne dem ci autorité yi ngeen di ñëw la ñuy wax ak ñoom ñoom xam nañ ko mooy seen kenn mosuñu faa gis kenn ku leen xarab te loolu mënul nekk. parce que ay junni nit nekk ci dëkk dëkku jàmbur xare bu buñ ko kon am na lu laru ca suuf mooy sëñ Touba ga leen boole. moo tax su ngeen ñëwee ne dangeen ma koy yëgal d'accord naa ci danaa danaa awma lu te itam xëy na danaa joxe tuuti mais du du njistal du purit tey mais def naa ne ah New York ma ñu def kër ga mais ñëw naa fi jox leen vingt mille dollars yéen nag benn xëy na sax bariwul xaw na def naa 1000 dollars waxaw ma mais pour tàmbali la damaa bëgg ñu xam ne yéen ñun leen res li ñu leen fi leen teg yàlla la ak sëñ Touba te yéenay liggéeyal yoon wi de kii nag kii nag noo bokk place sama rakk nga sama lépp sama xarit nga deel xool boo gisee loo xamul na ñëpp na gis nga loo xamul <laughs> yéen itam bu ngeen demee la liggéey bi moom lii laa ci xam man mm. bu lu ngeen di def mm. xam leen ko mm-hmm. su fekkee da ngeen di liggéeyal seen bopp bu mm. di leen seen entrepreneur ak seen i ñu liggéeyal leen mm-hmm. kon daal yàlla na leen ci yàlla defal ndam fu ngeen ci toll luñ ci man bokk ca waaye nag gérer leen ko seen bopp yéen sëñ Tuubaa ngeen di defal mm-hmm. baax na jeex na ñun nag ñu ngi ci seen wet lu ngeen gis nag luy pakk pakkarsal moom buñ ko yëgee moom danañ jiitu xool mm-hmm. bu dee luñ mën a àndal àndal bu dul àndal ñu wax ko ba ñëpp xam ne fokk baa ngi nii amuñu ci problème waaw moom kon asalaamaaleykum dafa am màndarga boo xam ne dafa feeñ te ñëw ci jataay bii tey moo tax ma bëgg ko biral ñu xam ko ndaxte bés ni ki tey ci 2015 la sëñ bi jóge woon fii ñëw ci Detroit ndax ñu sos FONCAB woowoon kuréel yépp ñu daldi ci ñëw foofu mu ne ñu wax ñu dëgtal ne waxtaan leen juboo lu ngeen juboo ma ànd ci at yéen bu fekk tegu na ci yoon bu tegu ci yoon ma wax tegu la jox leen ak yoon fon FONCAB ànd nañu juboo nañ te mu ngi yokk ñaar fukk ak benn lañu tàmbale woon foofu léegi ci ñu ngi ñeent fukk ak ñeent day doy jëm li ma bëgg a wax sëñ Mor wax nga ko ba pare euh, ñun sëñ bi mooy suñu royukaay ñun sëñ bi mooy ñuy liggéeyal ñun fu mu ñu teg foofu la ñuy dox bu ñu wanee yoon ñu daal ciy dox ndaxte daf ñoo doy daf ñoo won ba pare xalaat ni dafa weesu gis-gis bu kawe mus na ma wax loo xam ne sa sañu kiiwuma ko sax waaye danaa ko wax ñuy waxtaan ca boobu ñu ngi wut université bi di teg xeer mu ne ma xam-xam bi bu nekkee Israël nan ko jël indi ko ndaxte àdduna bi sunu borom moo ko moom loolu daal laa bëggoon biral na ñun ñi ñu ngi ci ginnaawam di fas yéene dox liggéey insha allah